alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñoo ngi yemoon ci wala allakum tashkuruun téeméer téeméeru aaya ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci saaru baqara baada audu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim ñu dem nag ci wa isa saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu dawata daayi isa daani li waral aaya boobu wàcc itam mooy dañ koo laaj moom yonent bi na ko ndax sunu boroom dafa jege ba mën nañu di ak moom am dafa sori ba dañu koy joor mu ne leen fa isaa sa alaka laaj na la ibaadi sama jaam ñi an nii ci man fa indi man xaribun ku jege laa ujibu dinaa wuyu daawata daa i woote aji woote ja isaa da ani ne man la woo fa leste jiboo nañu sàkku ak nangu lii ñeel def li digle bàyyi limu tere al istijaabatu jooju nga xam ne mooy nañu sàkku ci man ak wuyu istijaabatu ji mooy def limu santaane bàyyi limu tere nit ki su fekkente ni def na li yàlla santaane bàyyi li yàlla tere bu ñaanee yàlla yàlla daf koy may moo tax mu ne te jiboo lii xam nga bu dee ci lu xal arab yi rek ñu ngi koy firee nañu sàkku ak wuyu ci man waaye nag nañu sàkku ak nangu lii ñeel ma def li mu digle bàyyi li mu tere mooy tax boo ko ñaanee mu may la wala yuminu biya te ñu gëmma la àlla um ndax le yar si doole ñu jubal leen ci yoonu nangu ñaan yàlla daal di bii nag li waral aaya bi wàcc itam danañ ko wax léegi buñ ci eggee mu ne uxi la dagalees na lakkum ñeen leen laylata siyaam yi bisub koor arafa su booloo arafa su booloo ilaa nisaikum ci seen ànd ak seen soxna ya kun na ñoom libaasun lakum malaanam sutura lañ ci yéen wa antum libaasun la unna yéen tamit malaanam sutura ngeen ci ñoom aliman laa u yàlla xam na ne annakum naka yéen kuntum nekkoon ngeen tax taanoona di war anfusakum seen bopp ci booloo ginnaaw gee woor dañoo tere woon nit jaxasoog soxnaam ginnaaw géey ca njal bi nag lislaam ba war di dóori ñëw ginnaaw boo julee géey ah ah dootoo seq njaboot gu jigéen dara am ku ko def am koo xam ne julli ne géey ba noppi ànd ak soxma soxnaam waaye ba mu ko defee itam saaba yi ñoom niñ bindoo woon mooy buñ defee leen <coughs> lu yonent bi <coughs> ñëw ne ko ah yonent bi dama def naa nangam wax dëgg def naa ko de lu ñu àtte ñu àtte kooku ba mu ko waxee yonent bi nag loola moo waral yàlla ne anakum nag yéen kuntum kon ngeen tax taanoona di war anfusakum seen bopp ca booloo gi ngeen di boolee seeni soxna yi gannaaw gee wa taaba aleykum mu jéggal leen mu afa ankum mu baal leen fal aana léegi ba ñu waxe uhilla lakum laylata siyaami ba aaya ba jeex ginnaaw aaya boobu wàcce na léegi baashiru booloo leen ak ñoom wabtaxu te sàkku leen maa kataba laahu lakum la nga xam ne moom la yàlla bind ci yéen moo di doom wakulu te ngeen lekk washrabu te ngeen naan guddi gépp ataaya tabayyana ba feeñ lakum ñeel leen alxaytul abyadu tukkee ci fajar xaytul abyadu nag minal xaytul aswadi tukkee ci guddi xaytul as abyadu nag moo di niiru weex wi nekk ci penku tukkee ci bu fajar jotee xaytul aswadi nag mooy niir wu ñu luy ci guddi bu jant bu bu bu bu nee ci guddi minal fajiri ci fajar sama atti moo te ngeen matal nag asiyaama koor ga tukkee ca fajar ga ilal layli ba ci guddi ga wala tubaashiroo unna te bu leen ànd ak ñoom wantum aakifuuna ngeen di way laatikaaf fil masaajidi ca jàkka ya tilka atte yooyu nag ududullaa i ñooy dayali yàlla sunu borom yàlla nag mooy loo xam boo fekkee da nga war a taxaw falaa taqrabuha bu leen ko jegeñ waxuma di ca yegg nag te saalika naka nii yu bayu ni lay leerale allahu yàlla ayaat yi ay ayaam li naa si ñeel nit ñi la allahum ndax lee ñoom yettaquuna ñu moytandi ko ñu xaraam ya wala takkulu bu leen lekkante amwaalakum seeni alal baynakum seen diggante bil baatini ci araam ni ki sàcc ak daan ak dolli bor sàcc xam ngeen ko daan mooy bu fekk dina jël alalam ci kaw doole mooy agressé dolli mooy leble ne boo ma mën a leble tegal nangam ba tudduloo bu leen yoor bi a ca alal yooyu ilal ukaami bu leen ilal ukaami jëm ci xaadiya di leen ger ba ñu jox la loo moomul alal itam bu ko jël di ko di ko ger kuy atte ba mu jox la loo moomul li taakuloo ngir ngeen lekk farixan ab kuréel mu na mbari naas ci alal yi nit ñi bil ismi ci bàkkaar wantum taalamun te xam ngeen ko xam nga nag yàlla moom loo xamul du la ko du la ko topp wantum te yéen taala xam ngeen ne moomu leen ko ñu laaj ko lu tax bu weer teroo di tuuti di dolleku bëri gannaaw ga muy wàññeeku ba tuuti lu tere mu nekk rek ci menn mbir ni jant bi mu ne leen yes yàlla na ko yes aluna ni ñi ngi lay laaj adil a illati ci teeru tey weer yi xul nee leen lu muy jariñ ngeen war laaj waaw laaj lu tax hiya moom terute mawaqitul ay waxtul la li naa si ñeel nit ñi te la ñuy xam seen mbay ak te la ñuy xam seen mbay ak seen ngóob ak seen ay day jigéen ak seen diggi bor bu doonte nag weer woowu ñuy wàññi doo xam yooyu yëpp doo ci xam diggi borog takk sa si yeeg yëpp day jigéen ak doo ko xam walla aj ji ca la ñuy xame itam ak aj waxtu wa ci lañ koy xame ci weer yi walla walay sal lu diin mbaax bi an taatoo ngeen dikki albu yóote néeg ya min si wari acca gannaaw ya boo xam ne dama sañoo nekk aj màkka bu ñu armalee du ñu ñibbi seeni kër duñ jaar ci bunti dañuy toj ca gannaaw am pax ab poot di fa jaar di dem ak dikk ba ba ba seen aj di mat waaye duñ jaar ci bunt yi ba loola amee nag yàlla na leen loolu nag du ak mbaax wala kanal birru waaye mbaax ga nga xam ne kii moo dig mbaax di ak topp man ittaqaa mooy ko wattu na ndigal yi def ko wattu tere yi bañ ko def waatul buyuta ngeen dikki nag néeg ya min abwaabi acca bunt ya te ngeen koy dikkee ci waxtu yépp waa ñoom dañoo waxoon ne bu nekk ci armal di aj ca pot ba la ñuy jaar ba taxullaa ngeen teet yàlla ragal ko la àllakum ndax lii yéen daf li oon a ngeen texe saaba yi dañoo ragal a xeex ca urumi màkka ñu ne leen wa xaatiloo xeex leen fii sabilillah ci yoon yàlla alisina ñi nga xam ne yoo xaatiloo comme ñi nga xeex bu ñu leen xeexee njëkkee xeex wala taxta du bu leen tooñ njëkk a xeex ina laa nag yàlla laa yóbbul muxtadina bëgguloo yi ëppal yi màkka dañ fa araamal ku fa xeex waaye nag yonent bi dafa leen wax ne buñ leen fa xeexee nag xeex leen bu leen fa dóoree fayu leen waaye nag bu leen jeng bu leen ëppal moo di bu leen njëkk dóor bu leen njëkk a xeex